deuxième bi la même chose troisième la même chose lan moy waral pour yow changement de personnage yooyu ci film comme yow ñu joon ben Parfay mu jouer acteur principal ñu dem ba deuxième saison bi ñëw ñu changé indi wa tur parfait mais keneen lañu jël pour yow souvent lan moy waral lool yow mi nga xamné def nga ci métier bi ab diir. Euh, loolu am na ay raisons yu bari yo mën a teg yu tax yoy di am ci su amé ki nga xamné mo doon bind scénario bi il faudrait qu'il s'adapte à la situation mu changer le scénario de la sorte que quelqu'un du sentir une sorte de rupture mën na nekk une rupture mais rupture boo xamante ne bii mën nañ ko consommer dans la mesure où day nekk une continuité euh, continuité de l'histoire euh, si bien que euh, voilà c'est normal parce que voilà mais damay ñëw ci li ko souvent soit acteur bi mën na feebar malade mën na voyager mën na dem ba am une incam une incapacité physique bu ko mën permettre bu ko dul permettre mu continuer wala réalisateur bi dem ba ci biir ama envie changer de personne acteur principal. oui oui mun na nek mais bu changer ça veut dire que bu changer c'est que dafa changer scénario bi mais euh, ci ci contrat bi nga xamante moom ngeen tënk au départ loolu yëpp ci lay tënk bu faites un nga signé ak waa ou ne wala ndaw si sur les trois saisons yow a joué le rôle principal ngeen signé ko acté ko moom la fille n'a pas le droit ou le garçon n'a pas le droit de changer ak yu sauf cas de force majeure Mitam leen dina ko waral euh, émolument bi maanaam xaalis bi xaalis bi parce que boo demee ba am yenn popularité bon nga yobou série bi fo xamné wala film bi fo ni fi macha allah euh, nit ñi séntuwuñu ko won nga gis ni amna ay financière économique yu graw yu bari nga waxtaan producteur écoute revoir le contrat d'autant plus que euh, on est parti de rien aujourd'hui on est au summum on est au top kon ñun en man en tant qu'acteur principal ou actrice principale bu parce que vous avez signé contrat bon vous la mais vous poursuivre mais ce contrat boobu bi jël day pétaw kenn xamu ak bu ñu ba nit ñi vedette est-ce que day dafay dafay même contrat bi mais ce fekkee da nga signé contrat c'est sur trois saisons vous lay wax tu as fait première saison vous cartonné deuxième saison nous hein, nga renouveler contrat bi carton cartonné troisième saison nous renouveler le contrat mais pour le renouvellement normalement su fekkente ni su fekkente ni qu'un mu wax euh, da nga yóbbu série bi jeu ce liggéey série bi tous les sponsors tous les partenaires dañuy ñëw yow mii nga xam ne producteur bi amal ah vraiment nous sommes très fiers au départ nous étions à un budget de 50 millions aujourd'hui nous sommes à un budget de un demi milliard si, on est un budget de 1 demi-milliard, mais yo, bo gore, dangaran kikat, nan On a payé tant pour la première saison. Trois, euh, deuxième saison, bi yok a euh, 15%. Donc, troisième saison, bi yok a 50%. Wartan bu djubo rek. Mais pour faire que tu aies fait, tu aies fait, tu aies fait, tu aies fait, voilà. C'est le problème nan ngay partager avis Mariam Dial décision bi jël ko bokk ci e saison bi ndax neena na bo ba pare di am problème bu fay ay facture rek foo dëkk ak yoy ak nit ñi ni ko xamé légui yow en tant que artiste nekk ci doyen ban ban appréciation nga am ci wow c'est une question qui m'a été posée euh, c'est oui et c'est non alors nee na problème facture lay am parce que lolu wax wala wala problème location location ci ko xamante ki yóbbu nga euh, série bi fu kawe mais mënuloo am lo fay sa facture courant sa fak ndox wala sa loyer da waroon gën gëna waxtan ak waji rek waaw waxtan ak waji rek man su don man su don man su don man la duma bayyi bàyyi danaa continuer série bi wane ngor ak jom gi mat seuk su ko defee ñoom ñooñu am na yaakaar ne xeyna dañu dañu dem ba jimi jamono dañ ne ah kii kat wax dëgg yàlla quoique euh, laajoon nañ yokk mënu yokk mais fi ñu ne nii affaire toll na fo xamanteni ne fi nañ ko yokal parce que lolu mooy équipe esprit d'équipe esprit de solidarité da fay am moi je pense que euh, waro nañu mëna jappelé actrice bi comme yóbbu na série ba ci ba mu kawé ñu jappelé ko. di maîtresse aussi di madame dial aussi di maîtresse madame dial parce que aussi euh tax les léeg image ou personnage dans les top. Dans les top. Même si c'est la fiction. Hmm? Dans les top. Amna yoy dege, yoy dege. On a entendu l'histoire de matin de homme marié, bim fait ame yoyo. Wahnen ki nek. Bon. Euh, on a essayé, elle a essayé de se défendre avec son équipe. On a ça au niveau de Sanyara. Pour waxtaan ak ñoom ba ñu régler affaire yi. Bon. Mais teewul quand même. Li ma gisoon daal mooy que daal moom continuer la saison. On continue la saison bon les ñële vous bàyyi conscience Mais là ils gisoon des, là si c'était yow non bu le dem ak sama mu waaw du rappelle toujours Nélène, vous bu mu parce que équipe la en fait. ça devient finalement une équipe boo troisième saison. tu gardes le même personnage mais c'est une équipe c'est une équipe mais nag li nekk biir réellement réellement réellement réellement ñun mënuñu ko xam euh, nit ñi di commenter mënuñu ko xam y a que l'artiste l'actrice et le producteur ñoo ko xam waaw. Marème wax après Pod génn tontu après kële génn waxat donc mu nek ben polémique bo xamanteni ñi sax duñu xam exact ñom fan lañuy tek sen seen ak fan la taxaw quoi. waaw c'est c'était prévisible hein parce qu'au niveau de Mbarodi, euh, ils ne veulent pas porter, euh, ils veulent pas porter l'accusation. Hein. Il faut nous défendre le Hmm? Parce que comme c'est l'autre qui a fait une sortie, bon, l'erreur devant, devant l'opinion, il fallait qu'il y ait l'erreur devant l'opinion. Mais où se trouve la vérité, on ne sait pas. Mais je, je, je sais que né, euh, bon, malheureusement, ça s'est mal passé parce que, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, trouver un bon terrain voilà euh, parce que am na ñu ci laxasu yoo xamante ne xamuñu ko ah. lu dox tànku jàmm comme yow yaay président des des artistes comédiens. oh non comme démarrer nañu. ils ont démarré ils ont commencé à tourner non Voilà, comme commencé nañu day xaw a des xaw a compliqué mais euh, li nga wax moom xalaat la xalaat la bon mun naa mun naa woo Mass maa nga numéro Mass disponible. il est disponible naa ko woo dox ci tànk jam ñu seet nuñ koy récupérer ci biir parce que c'est possible de xam nga scénario toujours mën nga ko dëpp yëpp mën na ci nekk mën nga ko dëpp voilà tout en restant dans le truc quoi voilà moi je pense que ce n'est jamais trop tard pour euh, pour bien faire amee yaakaar que ne parfait mi nga xam ne mooy président ARCO national bu na si dox ay tànku jàmm ba nga xamante nañ gisaat mariem Dial si biir si biir maîtresse de homme marié parce que mariem nag am am na si xorom si maîtresse ah, ah, ah, <laughs> waaw waaw non am na ci xorom j'aime bien je l'aime bien mariem moi je l'aime bien elle a une gueule hein elle a une gueule et puis euh, bon elle joue bien c'est vrai elle est naturelle euh, aussi euh, xam na daal mën na li muy def et puis dafa yàgg bëgg affaire bi ah xam naa ki ko dugal réellement ci milieu bi waaw xam naa ko c'est une dam di wan defoon comme rek waaw euh, defoon kom yaay waxtaan nañ ci ma euh, am na ta daf ko yàgg bëgg moom nekkee xale da ko bëgg ba tey ubbi ko moo tax ci loo bëgg rek xar si tànku tubéy yi sunu borom bu ñu la si jàppale lu mu yàgg yàgg yàgg mais mën na si dox tànku jàng ayca mu ngi noonu ñu am yaakaar que ne retrouvaille dina amaat si diggante Marème Dial ak waa Mborodi ndax Mass tamit niñ ko gisee amul problème te nekk na ku disponible waa ku yaru la Mass Mbuub sama xarit a baax si Mass Ndour <laughs> maa ngi koy wax Mass Mbuub Mass Ndour Mborodi maa baax a baax mu mel ni réeroo yooyu du ñàkk parce que bañ ak làmme ñoom ñooy dëkk mais lu mu si mënti doon rek ñi mën na ci dox ay tànk jàmm bu ko defee retrouvaille amaat si